ah non damay tooñ rek man du ko loog journaliste ba mais mais dañu bindu loo xamné ne garaamu ci bugaan daw na genn dekk bi orko yoy ñu doon wax ma nga Dakar man ma nga Dakar information yëpp ma ko suivre Dakar gi na su lo xamé ni en tant que journaliste du ko def parce que presse da nga nek lo xamé ni euh si j'étais à Touba mais formé euh, tout mon entourage parce que bima genné automatique je suis mouride ndongal Serigne Saliou bu natt dalo sama kaw damay delu sa cosaan la ma dem naa Touba siyaare Serigne Touba siyaare Serigne Fallou siyaare Serigne Moustapha dem ci Serigne Saliou delu ci Cheikh Béthio ci le même jour la nuyu la ñibbisi effectivement la brigade de recherche li ñu wax deug la bi ma localisé maa ngi Touba Touba la fayé sama téléphone mais ci le même jour la ñibbisi Dakar la ma fekk. wa wa no xara xara euh man bi may bi may mujjee 4 4 am j'ai tous les analyses tous les documents bi ma njëkkee daaneel dama demoon aux États-Unis faju ji maa ji si diabétique euh, euh, brigade de recherche wala tribunal ou bien kaso taxul ma daw yootaa aw ma loo xamee ni dinaa ko tiit sama àdduna lu dul damaa tooñ te man lii dal sama kaw xam naa lan la non c'est-à-dire complot bu rëy am na ci boo xamee ni lu leer la complot bu suis amna ci bo xamé ni bu leer la non Je takal opposition parce que je suis un musulman musulman. Hmm. wax musulman. Je te Je mais xamna ni complot musulman. je ci te xamna suis ko def ko def ko ak démission bi démission bi musulman. après comme musulman. buñ ci après lu nañ bu mais mais ak lu am mais ak euh, pour ma pour pour sama bu laajee ma setal sama der bu laajee bu ma ma démissionné mooy tax sama der set wala mu laaj ma démissionné mooy tax justice def liggéeyam ma laaj bu laajee ma démissionné moo tax du ma gêner le président Macky Sall danaa ko def. parce que waaw waaw man man pare naa pour loolu. mais nag li ci des dama koy bàyyi ak sama avocat mu yeggali ko li ci yeggali si yegg mais na ngeen xam ni man bokkuma ko àddu du ma ñëw àdduna këf man dong daara laa je vous remercie.